gënalu mu de ndax moo sañoon maag yow la ba ilaa yow mi din mais li di nga toll foo xamante ni dootoo xool lii nga bëgg da nga xool li mën a nekk. say jëkkër jii defu la waxu la gis nga ni mu def devant tout le monde public bi yëpp taxaw mbokk yëpp taxaw mu taxaw déquince wax leen li mu leen wax kon nag yow mii yaa ko war a sagal siggil ko bañ koo gàcceel. nee na ma taal yaayam ñëw fi jeegu waaf dugg ci biir kër gi nee dafa jël doomam tee ci loxoom ah. papi tee bi jiitu wan ma ginnaaw boo woyoo foo ne maa ngi taxaw waaw ah, Fatma Thiam yi moom kan la am fit ma. sa jëkkër daa ci ay problème yow da ngaa toog ci wetam di ko defal. ma taal nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la sama sey moo ma gën a sëyu jay na ba te boo moytuwul ku ma taal li dal jay na ba lu ko gën a metti moom may dal man mii. mais benn keroog maa ngi dégg madame bu jigéen di wax naan naan naan yow daa am loo ko xamee naan noo ko yaa ma xamal seen biir asam loo yow loo xamee madame bu yow Marème kon yow boobu ba tey yow yaa ngi ànd ak baasi man Marème pour man yo bàyyi nga Basile Marème Basile du sa nawle Marème xam nga loo sekk ak Basile nga xewle woo ko jox ko paas mu wër di la yëgleel nga xewle woo ko mu ñëw toog di tagg say maam mais yow sa biir ak sa biti yëpp Basile xam na ko ah Sall ngaari Sall Sall ak mooy yow yow tax amoo jom yow nee naa fi fi ñëw yow fi fi wut jéenam yow loolu laa ma la nga bàyyi ma Basile Diagne jéenam ba bàyyi ma Basile Basile mii deewu golo la J'entends quelqu'un. Non. Oui. Bété Bété, ce mercredi, à partir de 19h30, sur YouTube Even Pro de Sénégal. Bété Bété